Sénégal ak ñett ci ay réew maanaam placé nañu leen sous surveillance ñoo ngi leen di tëg bët yéenekaay gi nee na Sénégal dafa wone ak yow fus ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum seetal xaalis bu salte ak wàllum financement terrorisme yéenekaay gi nee na yàccaaral gi nga xam ne moom la ci Sénégal wone maanaam jéggi na dayo moo tax réunion bi nga xam ne direction bu bees yaawoo ak association professionnelle des banques ak établissement financier yu Sénégal réunion boobee fa nekkee woon ak note bu bon bi nga xam ne maanaam jox nañ ko Sénégal ne dafa yaaw fus ci lu jëm ci wàllum xeex blanchiment d'argent ak wàllum nag bettul kenn yéen a gi nee la tax bettul kenn bokk na si rapport yi nga xam ne of dañu koy génne ak waa CENTIF ak Cour des comptes amul benn yoon boo xam ne sunu njiit yi maanaam ñoo ngi ko yitteel ñii bu ñu liggéeyee ba def seen i rapport bu ñu ñëwee am benn suivi yéen a kaay gi nee na Moustapha Cissé fii la taxawoon bëccëgu na ay bâtiment yoo xamante ni blanchiment d'argent la bëri na ay bâtiment yoo xamante ni xaalisu drogue ma woowee ma jox ko ay preuve te ba xam ne daat na moo fi xew maanaam jéggi na dayoo ndax ñi nga xam ne ñooy ay narcotrafiquant maanaam ci géej gi la ñuy jaar géej gi voie maritime bi yoonu ndox wi yéen a kaay gi de Dakar Times nee na en tout cas bëri na ñoo bi nga ne moom la ñuy def moo xam trafic d'arme la moo xam trafic drogue la léegi daal yoonu ndox wi la ñuy jaar te la ko waral bokk na ci maanaam géej gi moo sàmbara amul benn contrôle bu baax boo xam ne maanaam ñoo ngi ko si def moo taxit sàmba fekk fa Abdou Aziz Ndaw wax ne force occulte yi maanaam nag ñooy ubbil yoon yi ñi nga xam ne ñooy terroriste yi te nag Macky Sall maanaam bu jëlul ay matukaayam ci Sénégal Sénégal dina dund comme li nga xam ne moom la Mozambique di dund ndax Mozambique nag fan yi nga xam ne moom la ñu génn am na ak song goo xamante ni terroriste yi amal nañ ko fa ba ñu bare bari ñàkk fa seen bakkan colonel Abdou Aziz Ndaw nee na Sénégal bu jëlul ay matukaayam li dal Mozambique dina ko dal yéen kaay gi de la sax xëy dañu xibaar nga xam ne jigéen ñi jàppale Adji Sarr ko def ni ki démb Aïda Patra la mu xamle na on nous kaay gi di mi quotidien xëy wax ci lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ginnaaw nag waa états bi ñu joxarbe baaraamu tuuma réewum Sénégal ne wàccewut respecté wul li nga xam ne mooy àq ak yelleefu ñi nga xam ne ay borom ñaari tur yi la ñu waa Amnesty International ñoom tim seen rapport bi génn na niki démb daan nañu koy présenté waa Amnesty seen rapport 2020 2021 bi niki démb la ko génnee waaye nag ñoom Seydi Gassama la nga xam ne daal wax nañu ko nee nañu Sénégal dafa war a li nga xam ne mooy àq ak yelleefu ñi nga xam ne borom ñaari tur yi la moom Seydi Gassama nee nag amul kenn koo xam xamante ni am nga sañ-sañ di dóor wala ngay toroxal wala ngay torturer ñi nga xam ne borom ñaari tur yi lañ war nañoo mën a dund ci réew mi te ñu bàyyi leen nañ seen afiya moom Seydi Gassama nee na état bu moo war a ñi nga xam ne ay góor jigéen lañ ci réew mi yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na mitin yi ji ma ngi mel ni tulleeg maa la ci réew mi waaye lu jëm ci wàllum transhumance bi tamit jamono ji ma ngi mel ni tulleeg maa la ci réew ne ñoo ngi dem di fekk Macky Sall bi nee na ndax du troisième mandat bi la gars yi di a réew liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi jamono ji sonn nañ ba maara détaali ñoo ngi ci ñaxtu nee ñu nag ñetti fan yi garaaw la nga xam ne moo ko waral bokk na ci seeni indemnité la ñuy laaj yéen a kaay gii xëy yóbbu ñu diwaanu Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara nee na Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé jamono ji daal seen ginnaaw bandang bu leen neex ñu ñëw Côte ndax ces pays seetal nañ